toogal bu ñu waxtaanee ba pare rek ñu jublu ci yëfi waa Njaasaan yi ñëw waa Cees de mu ngi noonu day ñam dara de waaw bay bokk sëñ waa jëm bismillah déet bokk ngi jëm Cees ah yow moom moo tax waaw sa paa bi kan bokk ñam dara de day day day sànni day ñam dara de kan noonu ah fekk ñu koy waxeeti beneen yoon nag ñu indi ay woykat ak yooyu waaw mais yow ubbil a ci ay kàddu waaw baax na de hmm, moom kay beneen yoon na ko préparer rek bu yeboo mu génnee ko ci biti nga lu lu baax kenn du ko comme bi bii mooy ñaata at ñetti at léegi wóor na ne xajatul fii léegi nañ ko génnee ci mbedd mi rek du noonu ah Kumba Fay Kumba Fay nii la commencé woon mille six Kumba Fay deux mille six la hmm. waaw ñu incha allah kon asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp ñi fi daje di ñaan yàlla mi am mbaax wàññi ko rek dama bëgg a seetaan spécial gàmmu bi benn bi buy biñ def mën nga ko wàññi bem kii rek ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñépp di jiital ci nuyoo bi donte nag badu moo ñu fi tax a teew waaye du du yëfam moom léegi rek conférence bi ma doon def euh, Coliposto moom laa doon wax dama ne ku am léegi doom muy julli waxtu yi juróom rek boo yeboo nga sant yàlla waxtu yi juróom rek bu koy julli boo yeboo sant yàlla tey ñaan démb ci xadara juma bi it loolu laa doon wax ma ndax xale yi léegi ñoom ñëpp a ay muntaay ga lañ ma xaw ma xam nañ muntaay ga wala déet mooy garabi yow xale yëpp garabi yow lañ léegi ñoo gën a dëng garabi yow waaye garabi yow am na njëriñ ndax mën naa rey yow ma ne kon nuñ mën a mel rek nañ julli waxtu yi juróom rek bu yàggee nuñ dëng-dëng danañ ba ndax inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu yaalamu ma tasnaun lu nit dëng-dëng tey julli rek bu yàggee dina jub waaye juboo julli woo moom da nga gën a dëng rek ma ne nag jamono bii ñu toll ku ci am njaboot newoo ko jógal julli rek boo yeboo sant yàlla te ba waxtu jotee nga gis ko mu julli boo yeboo nga sant yàlla ndax jamono moo yegg foo xam ni yar yombatul yow mën nga yar sax ci biir kër gi ni nga ko bëggee niñ la ko waxee ni ko yàlla bëggee waaye ci biir kër gi sax mën na xar kër gi te doo ko yëg ndax matuwaay yu bees yi mën na toj kër gi séddale mool yi te doo ko yëg miraas kër gi ba mu jeex te yow doo ko yëg fi mu toog lay toog nga ne sama doom ji ku baax la demul dikkul fekk tas tas na àddina bi ba pare door a ñëw toog jamono nag bu yeggee foofu euh, dóor yaratut xas yaratut saaga yaratut da ngay fexe ba yar conscience am ba kenn du ko mën a détourner dara du ko mën a détourner nit boo yaree conscience am rek ba mu am conscience tranquille xam ne ma jur lii laa war a def lii laa war a bàyyi rek la ca des nag dangay ñaan yàlla mottali waaye li ma ci jublu mooy ñoom ñii lii du seen ay ah sant yàlla nag comme yóbbu na ngone sa ca daara ja eh, mel na ni mu ngi ci yoon waaw ah, damay bañ a tudd tur wi rek <laughs> waaw tur wi laay bañ a tudd rek comme yóbbu na ko daara ja daal fa lillahi alhamdu waaw ah, su ko defee nag ñoom lii du seen cër cëru sama nijaay mii toog la ndax moom la yàlla suturaal bem def ci ñoom lii ñu xam ko mën ko bu doon ñeneen tey ñu ngi ci leneen te doo ci mën dara doo ci mën dara waaye lii góor gi jóob seede léegi imam loolu moo am kii du li muy sama nijaay a tax mbokk gi yaatu na bari na waaye moo ciy sama séddoo te yàgg na boobu maa nga ci kër ga maam Cheikhu bokk ñu joboote ñun ñëpp bu mosaan ñëw doo xam ndax booba sax nekkagul colonel boobu capitaine la ba commandant ba muy dem pari yëpp ñun ci suñ kanam la ba muy dem pari di defi commandant bi yooyu yëpp ci suñ kanam la waaye nii mu mel la mosa mel mosul am benn soppeeku mos naa ko koy wax ma ne ko am na benn tabaski keroog laa xam ne moom mii lu mu bëggut ci àddina ci moom la lu mu amul ci àddina ci moom la àllaaxira moom xam naa ne dina neex yàlla na yeex ndax dama xam maam Cheikhu maam Cheikhu yàlla dogal sama maam la waaye ñoo bokk turandoo ñoo bokk ñu tuddee maak moom daf ma ko daan wax maam Ibrahima jàlloo lañ ñu tuddee man maam Cheikhu ak Baye Niass ñoo bokk benn turandoo maam Ibrahima jàlloo bu seeni géey ca Gàmbi moom lañ ñu tuddee maam Ablaye Niass bi mu defee exil. bi ko tubaab bi exilé mu dem Gàmbi Ibrahima jàll booba la fekki woon daara la yoroon di jàngale maam Ablaye dem fekki ko nag mu ne ko daar kii li may wax imam Sakho mii dinaa ci ñëw xam nañ mu ne ko daara ji nag gannaaw ñëw nga tey boroom xam-xam féetale naa la daara ji maam Ablaye di jàngale ci daara ji ba bàyyi gane àddina bi bàyyi ganee àddina 1900 maam lay Niass ne ah ngor nag mayu ma teraanga bi nga ma defal tubaab bi génnee ma senegaal ma ñëw fii nga fat ma jël daara jox ma sama doom gane àddina ma koy tuddee keneen ku yow ci la tuddee Baye Thierno Ibrahima Diallo boobu la ko tuddee Thierno Ibrahima Diallo boobu ak Cheikh Thierno abdu Karim Diallo bi may Cheikh Umar Fuuti yu wér du ñoo bokk ndey ak baay moom lañ tuddee seen papa moom lañ ma tuddee moom lañ tuddee papaay Baay Ñas moom lañ tuddee Baay Ñas seen papa doon nitu yàlla bu mag man ci ñi mujj ci loxo ci man ci laa bokk man ak Tom ak Bas ñoo am boobu sens waaye maa ci ëppale nag ndax ñoom ñii ñëpp seede nañ ne ni ma bëggee woon te fonk ma carno mi <laughs> li muy wax sama maam Cheikh ko rawoon benn tabaski ñu toog boobu sama maam am na lum jëndee tabaski de waaye ñoom la doon xaar ñu jënd deke te xam naa ñoom ñëpp yàllaa def ñu fàttee ndoor ko beñ na suba la tabaski xaw ma moom mu ngi koy fàttali ko walla déet bañ ne la suba la tabaski sama nijaay bii mooy yónnee ponkalu xar ak yaakaar naa deux cent mille keroog laa mos a gis maam Seexu kontaan bay ree daal di ne lu ma leen waxoon waxoon naa leen ne balaa bër di set xar dina ñëw xéewal dina ñëw keroog laa ne lu mu amul ci yàlla rek ci moom la ndax am na mbégte boo xam ne boo ko defee ci jàmbur sax yàlla fay la waxuma la ak bàyyi bi la ju ah? jàmbur boo seqalul dara boo ko defee ci moom sax yàlla defar sa affaire waxuma la ak bàyyi bi la jur damay waxit it ne moom bu doon lu mu am dajale ko billaahi am nay château ndax teraanga ji jaar ci loxoom ñim defalit bu fekkoon ne delloo nañ ko bor bi <laughs> tey jii day jaaxaan rek yor piliyaanam ñim defal yiw bu fekkoon fey nañ ko bor billaahi wal kitaab bi day jaaxaan rek yor piliyaanam ndax fu mu mës a nekk man fekk naa ko fa muy école police muy kan Abdou Diassé muy euh, camp tropical ba ci Sékou Mbaalo bi camp pénal fu mu fi mës a nekk fekk naa ko fa kër gi buñ tegaan comme kër ga ca Savanel Sokone rek buñ mësa nteg añ boo yéexee doo añ ndax nit ñu bari fu ne la nit di jóge ñi mu yar ci loxoom ñu yaroo ci kër ga xëy tey am lu dul jeex bu doon kenn ku ne danga xëy bu weer dee nga jox ko cent mille rek affaire am mën na ba yowmal xiyam waaye reconnaissance la sénégalais amut kuy def defal ngir yàlla waaye billaahi sénégalais moom jarut defal kuy def nag dangay ngay def ngir yàlla rek dinaa ci joxe benn exemple alaaji Abdou Aziz nee na Seydul Xaaji Malik bu ma nee sénégalais man sénégalais la ci ndey ak ci baay sénégalais la su ma nee sénégalais du ñëpp bu ñëpp yemoon am ñu gedd seen cër baaraam yi sax yemuñ euh, alaaji Abdou Aziz nee na Seydul Xaaji Malik dafa am jigéen ju nekkoon Tiwaawan wax nañu turam waaye léegi tudd yombatut boo tuddee nit mu foog ne da nga koy wàññi wala danga koy xas wala danga koy tuutal mu ne soxna si nag ku amoon alal la daanaka ñi ko ëppoon alal Tiwaawan bariwul nee na yàlla nattu rek lakk am këram alal ji yëpp lakk dara génnul mu ne Seydi Hadji Malick woo man Mansour doomam ne ko dama bëggoon bu ëllëgee ci yoor yoor nga dem kër diw nga laaj ko lim lakkale yëpp ñaata la toll bu ko doon xayma ci alal ñaata la war a toll waaye nag bu mu yëg ne maa la yónni de bu mu yëg ne maa la yónni de pour nga xayma alal ji bu mu ko yëg de bu mu xam ne it maa la yónni ah moom bu demee dina xam ne doomu alaaji Malick la mu ànd ak benn mbokk taalibeem ñu ñëw ba ci bunti kër ndaw si mu ne ko dugal nga ne ndaw si dafa am waayu yàlla buy laajte lim lakkale ñaata la daf ci bëgg a def wàllam mu ñëw wax ko ndaw si ndaw si ne ko ah loolu neexu la fay di te moo def lim am rek mu ne ko nee na daal dafa bëgg a xam xaymaay alal ji nee ndaw si ne ko ah ma wax la boog nee na mu wax ko yépp mu génn wax ko alaaji Mansour alaaji Mansour ñëw wax ko Seydul Haaj Malik nee na Seydul Haaj Malik ne ko da ngay bàyyi ba ëllëg ca tisbaar nga ñëw buñ jullee tisbaar ba pare nee na ci ëllëg sa ñu julli tisbaar ba noppi alaaji Mansour ñëw Seydi Haaji Maalik yëkkati alal ja nam toll xam nga loolu war naa bari teg ko ci loxoom ne ko yóbbul ko ndaw si te bu xam ne maa ko joxe alaaji Mansour ànd ak kam àndaloon ñu dem ba bunti kër ndaw si mu jox alal ji waa ji ne ko dugal jox ko ndaw si ne ko waaye yàlla bi doon laajte moo ko joxe ñu ñuy def noonu mu génn dem nee ci tàkkusaan Seydi Hadji Malick di jàpp ci wanagam ci petu jàkka ji ndeke ndaw saa ngi wéeru ci sàkket bi Seydi Hadji Malick ngi ci biir di jàpp mais xamul ne Maodo ngi ci biir ndax sàkket bi mu ne ma dégg muy wax ñim doon gunge moroomu jigéenam waaw ana seen Malick faa wàddi mi ko mu ngi ne ko ah moom de ku ko yaakaar ëllëg du dox ndax fii sax doxagut man de ma ma lakkalee ba tey ñëwut yónneewut mu ne Seydi Aji Malick jàpp ba pare ne yalax ne wool leen ma alaaji Mansour ñi ko mu ne ko Mansour fi ma la yónni woon demoon nga fa mu ne ko waaw mu ne ko joxoon nga ko ko mu ne waaw mu ne ko ndokk ba alaaji ba maalik yàlla taxee muy def mu ne ko su yàlla taxuloon Malick perte na at dina perte àllaaxira mu ne ko maa dégg sama nopp ak gémmiñu ndaw si mu ne Malick day faawaat di fii baaxagut kon fële du baax ndax ba ma lakkalee ba tey gisuma ko loxoom ñëwul mu ne ko ndem man la sama jamono mel nii assuma la ak yéen waaw ndem jamono alaaji Mansour alaaji Malick ñoo mel noonu astuma ñun suñ jamono tey kon ñii luñ baax rek doyul ndax kii référence la dara ji ji ko yàlla joxoon ci police ba police di police laa wax léegi police daanaka yàqu na rek waaye police ba muy police bu mosee génn fu mu joxoñ ñu dagg ko ah loola nag mos su ko wane bu jàkk jotee mu dem jàkk ña gën a mis miskin yi lay fréquenté njobootam mooy occupation ku ko fëgg biroom mu ubbil la lu waay soxla ci moom bu amul léppit dana teg ci sa loxo lu sedd sa xol ñii may wax mën nañu seede loolu kon nag badu suñu doomu nijaay la yab nañu ko waaye ñii lu ñu baax baax li ñii war nañu tax ñu dolli fi ma ciy jeexale seen seen papa muy suñu maam Cheikhu Diouf yàllaa ko baaxaloon ba baax ñoom it luñ baax baax dabuñ ko ci dagg-daggu we ndax man lu ma xam laay wax ñoom mën naa ne xëy na ñooma mag de mën nañ maa jur waaye billaay li ma xam ci seen papa am na ci luñ ci xamul ñoom te moom mii xam na li may wax toog naa ci kër ga sama papa génnee nit ndax seen papa génnee nit ndax man ci kër gi ne ko génnal ak sa bagage ca biti waaye shérif moom bu ko kenn wax lu ko naqari ci kër gi moom xam na li may wax xam nga loolu te gim génnee njobootam la de njobootam la moom damay bañ a tudd rek ñoom xam nañ li may wax mujj gi la kooku dellusiwaat ba muy génn àddina bokk na man la njëkk a woo ne ma dem leen ngeen raxasal ma jumaa ji ngeen raxasal ma moket yi jàkka ji mosuma sant service lu dul keroog ku ma mos a yónni sax bu déggee ñu may yónni mu ne ku ngeen di yónni shérif ñu ne mu ne yónni leen keneen bu julli mosaan jot ñoom ñii laaj leen bu julli mosaan jot amul kenn ku ñemee jullee sa néeg amul jàkka ja wala day dajale ñépp ci peron bi jiite ñu julli su jiitewul rek man lay wax jiiteel léeg dafay nekk sax ñoom ñii ñëpp ñu ñëw fi kenn mu ne ma doxal ca kanam fajar maa daan yeete ku jógul julli bu njulee fajar ba pare ci lay dugg ci néeg yi nag jël kaanam bu la fekkee ngay nelaw bu la dóoree te yàlla daf ko joxoon kàttan yàlla def nag bés man ma biddanti gaa yëpp yéene ma ko ndax man maa ko daan téye di yóbbu ci biir néeg yi te dama ko daan bu bu ma ñëwee ba ba yegg si dama naan ko anamu sax doom jaa ngi ne le boobu juddoogul moom bu ma ñëwee ne ko basa ngi nii bopp bee nekk nii nag du ma wane tànk yi de bopp bi lay wax waaye bu xacce bi dóor mbàjj ma moom ngay gis fële léeg-léeg ma ne ko yóbbu ko néegi tom tom a ngi nii walla waali waali juuf waali banja yàlla nattu ma man ma biddanti waaleeg tom yàkkamti nag ne ko paa shérifa biddanti tey nag moo daan yeete tey moo biddanti léegi léegi nag nañ dem nañ dem maa ngi ci néeg bi boobu jóg naa ma dégg ñu naan ko nañ dem paa mu ne bàyyi leen ko moom bokkul ak yéen <laughs> waale ne ko waa paa nag yow li ngay def tegoo ko fen ndax dangay ngay gënaat le <laughs> xam nga loolu nit du ko fàtte mukk waaw cofe am na cofeel yu la nit di ëmbal mënoo ko fàtte mukk waaw mu ne ma dem leen ngeen raxasal ma jàkka ji mokketi jàkka ji keroog la ma mosa sant service yaa tom waaye na bas toog ñu ñu dem raxas moket yi entre onze heures midi la bi ñuy pare une ñu weer ko ci kiiwu jàkka ji miiru jàkka ji fi ñuy pare bay raxas karo yeeg yooyu bay pare Guillaume romb ñëw wootoom ànd ak moom dem demeen ñoom àllu alsaan Ndiaye bi newoon kër Pa Ousmane Jama ba ci ñi doon jàppale la bokk ma ne alu mu ne ma ne ko maam Cheikhou gaañu na mu ne ma yow yaa dëgër fit ma ne ko Guillaume woo bi mu wootoom Guillaume moo ne woon chef de brigade bu Sokone ma ne ko Guillaume woo bi mu wootoom wëññeeku wuñ savanel continué ndemeen maam Cheikhou moo gaañu te di nga ci xam dara ma ne ko góor gi lii moo taxoon mu sant ñu ñu raxas si jàkka ji biñ koy jullee ci jàkka ji moket yi wowagul boobu moket yi wowagul fekk bi may bi may dem nee na ma su may su may sama bàmmeel yow ak Nding Sonko ak Buuba nangeen ko gas maa gas bàmmeelam man ak Nding Sonko ak Buuba Tunkara xam nañ li may ñi may wax xam nañ ko mu ne ma soo paree soo ko gasee ba noppi suñ ko gasee ba noppi na la fa Buuba Tunkara bàyyi ak Nding Sonko yow nga bindal ma fa nangam ak nangam ci biir bàmmeel bi te buñ may suul buñ jël suuf si sotti nañ teg benn kees ci kaw dënk ma yu bari wax ma ci ñoom kenn ku ne ba ci maam saaba seen yaay kon ba ca ëllëg sa biñ ko robee ba mu am ñetti fan ma tëdd gënt gis ko mu ne ma yi ma la jënkoon am na lu ma la ci bëggoon a jox waaye dama ko fàtte woon demal ci bitig ba xas naa ko ko nettali te won naa leen ko ñoom mu ne ma demal ci bitig ba classeur yi ma daan bindalee tubaab yi seen bon yi wàcceel ba benn classeur ñaar ñetteel bi am na kaye bu fa nekk kaye boobu ay secret ñoo ci nekk alaaji ahmad dem moo ma ko doxoon àndoon naag falaxeg naa si nag falaxeg naa si bi moom yóbbaale naa ko waaye kaye bi demal nga jël ko yaa ko moom ma xëy rek jubali ci bitig bi aji wàccee ubbi kay fekk ko ci wan naa ko ko wan ko sama nijaay Ousseynou sama nijaay Ousseynou na ma lii kañ xaw ma ci dara yow kay <laughs> jël jël nga yóbbu yaa ko moom sa yëf la kon eh, seen papa bokk ci mag ñi lu bari mu nettali ma ko ci digganteem ak sëñ Touba nee na ma nii ma xamee Alaaji ma Dem noonu laa xamee woon sëñ Touba di ko fekki Jurbel mu ne ma du benn yoon du ñaari yoon moom ak Cerno Yaxya li lu may nettali ci sëñ Touba li ci ëpp ñoo ma ko nettali xanaa xamoon nga loolu yow maam Cheikhu ni mu xamee woon a jax ma Dem noonu la xamee woon sëñ Tuuba mu ne ma Jurbel laa ko daan fekk mu ne ma maam añ su ñang bii ngay gis ci Sirmang mu ne ma premier néeg bi mu fa njëkk a samp mu ne ma man Cheikhu juuf maa ko rëdd ñaanal ko fa fanaan fa door ko faa bàyyi maam añ su ñang mii ci Sirmang yooyu nag baax na ngeen xam ko kon moom mii yàllaa ko suturaal waaye nag yaayam raw ko nag maam saaba kooku moom moo ma gën a jaaxal ci àddina moom xàmmeewul legoos ak mbasin xàmmeewul dàll ak tànki neen lum am mbedd mee ko moom mbubb lum seer seer seer <laughs> bu ko solee benn fan nga bañ mbub ma buy dem màkk marché da koy diree diree bi mbub mi ñuul bu ñibbisee toog ci diggi waañ ak mbub mi yoonam newu ci soble yi sax ci kaw mbub mi la koy xot xolli buy dem marché day dem ba sori door a wax eh mbadankalang ma ak sama dàll yi xàmmeewul yoonam newul ci àddina itte bi mu amoon togg yekk rek la xam lu am nit ñi la koy séddale kon ñoom seen mbaax dañ ko donn ci deret ak ci jikko nag kon ñoom ñii lu ñu baax rek doyul lu ñu baax rek des na kon yow nijaay yow la ñuy sant di la gërëm di la ñaanal yàlla ah yàlla na nga toog ba li nga bëgg ci ñoom yàlla def ko xam naa ne am na lu ci am waaye am na lu des lu bari te yàlla na nga fekkee lépp yàlla na nga fekkee lépp yàlla na nga toog bañ dajee ñoom ñépp kenn ku ñu dajale daqaaram fekk sax kenn ku ne mën na ko waaye ñu dajale ñoom ñëpp kenn ku nekk indi lu symbolique ne nañ tabaxal suñu papa château ñu tabax ko ba mu yegg nga dëkk ca biir ay at door a yeewee ku dem yal na ko yàlla def man de loolu laa la yéene ci ñoom waaw ndax vraiment dëgg dëgg dëgg ku ñeme njaboot la man li may wax dama ko xam ne ku ñeme njaboot la. ku sonn ci njaboot la bu ma nee njaboot nag du ñim jur rek de doomu jàmbur yi sax la gënoon a sonn ci ay doomam loolu àddina bi yëpp seede nañ ko ñim bokkal bàyyi seede nañ ko ñim bokkal ndey ak baay nañ jikko bi mu yor benn jikko la laazim wasifa ba mu jëlee wér wird kenn xamut kañ la biroom sax boo ko fa fekkaan doo yaakaar ne kii chef la diine rek ko ko ñor te ci la del si tey li imam mbayka doon wax oustaz mbayka mu ne ah, tubaab bi daal ku ku nekk ndaw mu nangu la waaye incha allah ku màggat ñibbisi <laughs> mu ne ku màggat rek ñibbisi waaw oustaz mbayka moo ko doon wax kon nag eh, lii yëpp dama ko doon wax pour présenter wale suñu gan yii kii mooy imam Mouhamad Lamine Sakho di borom xam-xam di jerbaatu alaaji Aliou Sakho ca Fass Caaxo dendeg Medina Baye Mass Alaaji Aliou Saaxo moo doon xaadi bu Banjul daaw jéeg la gaañu moom mii nag yaayam ak imaam Aliou xaadi Alioune Saaxo ñoo bokk ndey ak baay muy borom xam-xam xam ngeen Serigne Mansour borom daara ji xam ngeen ne xam-xam rek ko ñor bu ko mosaan gis ñëpp lay génne moo ko Souleymane Samb bi génn leen sama ñaar ñi ñëw nañ ñu génn muy waxtaan ak moom ci xam-xam ba tabax jumaa jooju ci golf ne kenn doyuma ci imaam Lamine Sakho ma ci doy dal di ko jël def ko foofa ci jàkk ja muy imaam bi mu ne ko yaay imaam bi nag waaye Souleymane sàmb mi moo yore biir bi de yow laa dënk biti moom laa dënk biir ñoom ñaar ñu àndee noonu ñoom laa fekk ñuy ànd ay ati at ñoo bokk benn kër boo ñëwee ci kër giñ bokk doo xam kuy soxnaay kii ak kuy soxnaay kii la doo xam kuy doomu kii doo xam kuy doomu kële ah bi bi màggee nag ku ne am kër yi boppam ci lañ waaye du tee ñoom ñaar bés bu set buñ gisante wut daañ déggante téléphone loolu laa xam ci ñoom ah, may ñëw indaale leen ren mooy ñetteeli at bi ah, la ko def nag mooy ñu it dañ ko def rek pour dundal kóllëre ak jéem a jéem a delloo mbattu ca ndaa la ndax seen papa bi may defal boobu aw ma mënuma li ma may ciy junni aka bari laa ilaha illallah li ma may ciy junni aka bari daaw ma may lu tuuti de te boobu dañ gàtt xel xam nga ab shérif ak sëriñ yem dañuy gàtt xel man sax amoon naa xel waaye Sidi Kunta ñàkkoon xel boobu maa ngi ànd ak ñoom Seydi Kounta ak ñoom sëñ Souleymane Seck fu ñu manqué bon essence rek mu ne ma nañ dem Thiès ah nañ dem dem Thiès buñ ñëwee Thiès mën nañ fa am une semaine deux semaines lu ne lay daj waaw lu ne lu ne lay daj ci ñun bu ñuy dem mu jox ñu essence bu doy génne xaalis jox ñu te du mat weer kat ñu ñëwaat foofaa ne woon suñ suñ wiiri wiiri jaari ndaar yi foofaa ne woon suñ ndaar yi moom daal bu ñu jógee Tivaouane ñu nga Thiès bu ñu jógee Dakar ñu nga Thiès xam nga Thiès ne ci digg bi te ñun Tivaouane la ñuy nekk wala Dakar bu ñu jógee Thiès bu affaire bi coolee bu ñu jógee Tivaouane nañ jaar Thiès bu ñu jógee Dakar yelwaan neexoon ñu ne nañ jaar Thiès Thiès moo doon markaz bi ñu bari dañ foogoon ne sax falaa dëkk ku may jox falaa lay jox ku may recevoir falaa lay recevoir mujj bi kaas bi kaas bi woon ci biir kër gi daanaka fa lañ fa lañ dëkkoon yàlla xam na ko ku may recevoir falaa lay recevoir même même sëñ ma sàmba mbakke mii di xalifa bi di xalifa sëñ Massamba Mbacke foofu laa ko daan recevoir ñëw na fa ba tàyyi ci Thiès foofu ci kaas bi woon ci digg kër gi kon loolu ngeen seede ko beneen bi ci des bi Pape Mbow di juddu xam naa loolu yàgg na Pape Mbow mi muy door judd maa ngi koy wax léegi soxna Sële anamu doomu Issa Diaw bi maa ngi koy fàttaliku ba nga yore sa 504 bu ñuul ba xaw ma yaa ngi koy fàttaliku wala nijaay lu yàgg laay fàttaliku man ak yow ak yal na ko yàlla yërëm maam Ibou Dem ñu ngaa yaa ñu jëlee woon kër maam Ibou Dem yóbbu ñu ñu ànd dem Jurbel kër Isaa Jaw ci kaasam bi moom it kaas bi ne woon ci ëtt bi keroog bañ fa duggee kaas bi comme àjjana lix ba fa nekk ak xeetu lekk bi mu fa indi keroog ñuy dem mu dugal poosam ci loxoom loxoom ci poosam dafa dindi rek saq rek jox ma moom bu daan maye maye dof yooyu lay maye day day tibb rek jox la moom Moodu Jaxam laa gis ñu daan def noonu loolu tamit duma ko fàtte mukk boobu la bokkar mii di door a judd daanaka isaa Diaw yal na ko yàlla yërëm nga xam ne moom kon yàlla yàgg bokkar mi may wax mu nga ca France de yor jabaram <laughs> yor léppam moom ak badu mii xam nga loolu yàgg na kon nag dama leen di wan ne mbir mi yàgg na du tey sa papa ku baax la woon waaw boobu mu ngi woon maire yi Jurbel mook sa mook sama nijaay di ay xarit fa tabaar teraanga mu fa def keroog man ak moom ak maam Ibu dem duma ko fàtte mukk teraanga bu ne keroog indi na ko ba may ba ma naan waaw kaas bi xanaa mooy àjjana waaw xeetu ñam bu ne xeetu fruit bu ne lu ne def na ko keroog nim ma ko defalee la ko defalee maam Ibou dem génnee lu dul jeex jox ko ci lañ door a continuer ñëw Cees kon nag nijaay daal dañ lay ñaanal yàlla wér ak gudd fan sa xarit yi nga ma présenté it yal na la yàlla bàyyeek ñoom ngeen yàgg wér yàgg ànd ba njaboot gi di ko ànd yal na ko yàlla def soppe yi jàllo yéen ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel di wax ne ñii nag aw ma ñu leen ëpp de léegi laa koy wax duwaan fa laa njëkkee door a dem ko li posto ma ne leen léegi àndatuma kenn ma ne leen sama oto bu ngeen ci gisee nit rek Mansour Gueye la wala sëñ Souleymane Samb wala imam Sakho ma ne leen ndax nit ñi léegi da ànd ak ñoom fekk ñu ngi lay yëddu xëy feneen la loo xam ne doo ci mën dara ah dañ buñ ko waxee dañ ne mooy mooy may ànd te fekk li ñuy wax yëpp dañ ko fabriqué dara du ci dem ma ne leen jamono bu yeggee foofu nag yow dong ak sa oto doy na de wala walla boo koo xam ne wóor na la ne wëllëre la parce que jamono moo yegg foo xam ne dëgg-dëgg nag jikko yi moo yàqu jikko yee yàqoo yàqoo yàqoo yàqoo yàqu te li na Ndiaye wax léegi yonent bi yàlla ci ci jikko la ko tagg tagg ko ci Hachim tagg ko ci Quraysh tagg ko ci dara ci jikko la ko tagg innama al umamu ma baqiyat fa in humu zahabat axlaaquhumu zahabu jikko moy nit te nit ñi amatuñ jikko ñii de laa des ñu may àndal fa tabaarakallaahu kon nag te xam a tax ma jàppale ak jikko kon imaam sëñ Souleymane maa ngi leen di seedeel ne ñii daal du mbokk gi kese de waaye yàlla daf ñu boole jaxasewaat ñu nag boole ci moo indi lii tey lii nag ah mën na dem ba fuñ ko foogut de ah, ah, mën na dem ba fuñ ko foogut mën na dem ba fuñ ko foogut ci yiw nag ci yiw incha allah te am nañ ci yaakaar am nañ ci yaakaar bu boobaa it yal na yal na lépp tege alal xaqi wa ala siraatin mustaqim yal na ñu ko yàlla boole defal di sant ñëpp di gërëm ñëpp ah nabu loolu rek lañ amoon luñ ci wax xam naa ne gannaaw yéen léegi ay kilifa ngeen ah du tey duma leen tooñ tey moom dama leen di jéggal ndax télé bee tax te xam naa ne en direct la su ko defee nag kon dama leen di tagg tey rek waaye léeg-léeg ma sërxal ci yu kii rek ñëwul dara su ko defee nag kon dañuy sant yàlla di sant nag maam mi soxna dëgg yàlla lim tuddee boppam loolu la rek Baay Faal la yaay faal xaw ma Baay Faal bu mu ci doon rek baax na dafa am benn soxna su nekk reen xam naa ne dinga ko laaj alaaji Malick dina ko gis faama la tudd faama Jóob Baay Faal lañ koy wooye reen gi yëpp Baay Faal lañ koy wooye lu xew comme yow rek yéen a tolloo taay da ngeen xaw a niroo boole ci ma ne ndaama day bari affaire faama reen Poitiers Paris ñépp a ko xam lu xew moom yoonam newul ci tiijaan yoonam nekkul ci murit yoonam newul ci xaadir yoonam newul ci laayan lu xew day mel ni moom foofa la bokk mooy togg mooy yekk mooy séddale mooy def lépp boole ci neex deret ñépp a ko xam amul fooy dugg reen boo ne faama rek ñu ne xam nañ moom rek lañ lay xoolee na ndax sa wàcc sa woyof sa bëgg nit bëgg nit surtout te góor këram rek la am jigéen a koy yaatal moo koy xatal am na noo doon def premier fois buñ fi ñëwee gars yi bu deuxième fois dama leen di wax nañ dem fële ci gannaaw kii bi rek ah wax dëgg yàlla ndax dama koy tooñee jigéen ñi ma ne la buñ pusee pesee seen musóor yooyu ba am nu ñu xoolee foofu yëpp doo fa ñemee jaar waaw loolu loolu moom ñoom rek la ko yàlla mel may am na nu ñuy def musóor gi ak ni ñuy xoolee rek moom da ngay xam ne tey dara du baax waaw moom bu soobee yàlla ay fatiha ngay jàng ak salaatul fatiha ba ba ngay pare rek waaw jigéen mooy yaatal kër mooy xatal kër waaye moom yaatal na fa tabarakallahu ba bu bés bi jotee kenn du ko fàttali moromam ñëpp ay yàkkamti ñëw te liñ fiy def ku ne am na ko këram ndogu ku ne am na ko këram ñëpp ko am Sidi Maxtaar a gën a yambare ci nit ñi te am na ko waaw kon nag buñ fi ñëwee rek kanam gu leer gi mu wane la su ko wanewuloon ñëpp am nañ fut la ju day ni dañuy toog kon moom it yal na ko yàlla barkeelal njaboot gi mu fi am bañ fekkee njëriñ yi te yal nañu yàlla may suñu njaboot yi ëpp ñu barke ëpp ñu sutura ëpp ñu xam-xam dàq ñoo jaamu yàlla yal na leen ko yàlla defal ñi ko amagul yal na leen ko yàlla may ñi amagul njaboot yàlla may leen njaboot ñi amagul borom kër yàlla may leen boroom kër ñi ko am ba noppi yàlla téyel leen ko te sàmmal leen ko ah kàddu yaa ngi kàddu yaa ngi bëgg bu gudd li ci des dañuy jox imam saaxo su paree mu jox sëñ oustaz Samb ah su fekkee Thierno ñëw na rek ah, ak mbokk yi gannaaw dañ bëgg a dem ñoom waaw ñu njëkk leen jox kàddu gi asalaamaaleykum euh, Serif li ma ciy wax sax xam naa ni du bari mbégte moo tax ma wax <coughs> lii nga wax fii yépp man mii sama bopp wóor na ma ne li nga wax ci tijjaan yëpp lu dëgg xam naa ni xam lu weesu tijjaan waaye man yàlla dafa boole boole ma ak moom ren ëpp na fan ñeen ñeen fukki ndax ba mu gànnee école bu police tropical la ma fekk kon xam nga yàgg na ci loolu mu ñëw ci nekk ci service bi comme ni nga waxee léegi yàlla sàmm ko wottu ko ba mu egg grade colonel ñu xëy benn bés ñu nommé ko chef de corps li ma yor ko xam nga ko dama bég loo ci sa kàddu yi li nga wax ci moom ndax li nga wax yépp li ma xam lu ma wóor la man man maa dund ak moom ba léegi caxaliko ñu mu ngi mu ngi am na kër Thiès man maa ngi Thiès pour gàttal am nañu benn xarit bu ñu wax du Diallo moo nekkoon adjoint am presque ci ci service bi benn capitaine kooku xamul xam nga lu ma koy wax Hamidou jàll mu ne mu ne mu ne kii luy sëkkam mooy du du mënul wax déet du bañ su amee su amee défaut muy loolu muy défaut amul leneen lu muy bañ loo wut ci moom mm, mm, mm, doo ko fekkee da ko am kon nag wallahi al azim dañu ne nit suñu waxee baax na na fekk mbokk yi wax yow nag mbokk nga te ay mbokk rek ñoo fi toog li ngeen wax ci loolu ci wàllu boobu yëpp wallahi man mii seede naa ko moo dund nañu ëpp 40 léegi waaye wallahi loolu laa gis ci moom wax naa ko fii sànq wax naa ko fii sànq ci moom lañu ñu a gis officier officier buy dem ci jàkka di julli ci moom mii la tàmbale moom la ñu mus a gis officier bu nee jaar na suñu kanam nekk chef de corps waaye même euh, subalterne yi nekk capitaine ak lieutenant na duñu duñu doo gis kenn ku dem jàkk mu ngi nii mooy dem jàkk fajar jullandoog nit ñi wasif ba pare soogaa dem këram summee ko sol yére service kon nag loolu duma guddal li li li ci li ci lépp wax nga ko fi presque du ma guddal seede rek la ndax damaa bëgg ci sa wax ji lool sama xol sedd loolu war man ñu ñu fi toog ñu bari toog la mel ci ñoom kon nag euh, ci seen ñaan ak ñaan yi kii ma teg ci sama sama ñaan man maa ngi ñaan yàlla yàlla guddal fanam yàlla na def barke ci njabootam bi yàlla na jëkkam ji na ci njabootam yëpp roy ci moom ndax euh, dafa dafa bari mun ma ko waxee waaye wax dëgg la dafa yàlla de ko ci ci kaw moom wàcc boppam yow yow mii doon ñëw trop xam nga loolu ci moom kon nag loolu rek laa ci bëggoon barkeelu parce que bëgguma woon lii lii ñu wax ko fii ma xam ko te ma noppi kon dana metti ci man lool euh, yal na yàlla nangu lépp yal na yàlla nangu seen ñaan yeen imaam yeeg borom xam-xam yi ñu ngi leen ñu ngi leen di gërëm di leen sant yal na yàlla guddal seen fan yéen ñi tamit yal na yàlla def mag bi jaahi rasulillahi barakallah asalaamaaleykum mbokk jullit yi maa ngi nuyu ñëpp di ziara ñëpp ci biir nuyoo boobu ak ziar boobu maa ngi ci jiital suñu sang bi euh, Chérif ay Aïdara ci biir njëlbeen bi ma koy ziare di ko nuyu xaw ma xaw ma ko woon ba mu yegg see ma laajte ñu ne ma kii mooy Chérif Ibrahima Aïdara ma ne ah, kon xaaral ma jóg yegg ziare ko ma ne ko kuñ ne euh, sang bi sa sang sang yi mooy sa maam rek doy na garaat ci kaw suuf te gis naa ne tabarkàlla matéré nga ko ndaxte kàddu yi nga fi génnee jëmale ko ci sama bàyyi Cheikhou Diouf kii papam sama papa la parce que papam mooy sama magu papa Kabou Diop dégg nga yaakaar na xam nga mbokk yow mu ngoog mu tabarkàlla mu ah ci biir loolu nag ah du ñàkk ma sërxal ci tamit euh, ñi nga xam ne ñoom laa bokkal dëkk bi ci jàmmalay seen nuyoo seen jaara jëmale ko ci Aliou mais jaarale ko ci Aliou ñëw ci yow ñëw ci papaam ñëw ci mbooloo mi fi toog yëpp dëkk bokk dëkkandoo yi xëy na ñëpp teewuñu wante am na quelque ñu fi fi nekk ñu di leen seedal ne ah sëñ Aliou Diouf bii suñu doom la xëy na nag la ñuy wax saabu du fóot boppam dëgg la wante ku baax baax la ku baax la te soxnaam sori tamit yaaram la tabarkàlla ah maag papam nag ah 1956 la njëkk a dugg école kër Cheikhou Diouf laa nekkoon jamono booba waaw booba Cheikhou Diouf moom ma yore woon moom maa ngi koy nettali ma ne ko dañ dem ba ci biir année année scolaire bi monsieur Mbow wàññi ñu boobu dañ tuuti par rapport ak élèves yi fi boobu da am 12 ans 13 ans 14 ans di ñu ñu nekkoon ñu dawoon na si suivre ci biir classe bi ak ñoom monsieur boobu dal ñu wàññi ne dem leen ngeen toog ba déwén ngeen ñëwaat ca déwén sax man ñëwaatuma mais moom ñëwaat na. lii mooy mu def suñu décalage mu jiituma en an à l'école mais tabarkàlla keroog ba ñu wàññee dama ko kañ dem suñu kër am na garabu orange ñu aji ci orange lekk su dégg nga noonu jaar suñu kër aji orange ba suñu xol teel la lañ soog a soog a teqale ko ah sëñ ma walla si boog Chérif Ibrahima kàddu yi nga fi génnee ah, yàlla dégg na ko muy kàddu yoo xam ne dëgg la tamit gëm naa dëgg la parce que xam naa ku baax baax baax baax a bàyyi Cheikhou Diouf tabarkal noonu taw bu màgg la woon ci biir Sokone ah ba léegi ñaan yi nga fi génnee yal na yàlla nangu te gërëm dégg naa ñaan yëpp te yàlla dégg na ñaan yi tamit yàlla dégg na ñaan te yaakaar nañ jotaay bu mel nii ci jotaay yi yàlla di gërëm ci lay boole jotaay bi tey kon nag ah, du mun a guddal wax ji leen seedee rek ne suñu dëkkandoo yi Aliou ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant ñu ngi lay ñu ngi lay jaare Ah, di la di lu bés bi ah si doole ñaax nga doole góor góorgóorlu ah Tidiane vraiment kàddu yi mënut a gën a gudd parce que xëy na mu ngi mu ngi bëgg a guddi wante dëgg-dëgg sama xol na sant naa gërëm naa la yëpp yaa ko yaa ko waral di yëpp yaa ko yaa ko waral tabarkaale jiw vraiment maa ngi ñaanal yàlla yàlla doole guddal sa fan may la wér yàlla may la baraka ci njaboot gi ak ci lépp luy soobu ak sa njaboot naa Seydina Muhammad ak suñu waajur yi jiitu ak suñu yaay yu jiitu yëpp. yàlla yërëm leen jégal leen boole leen ca ñay tabbi àjjana ëllëg yàlla yërëm leen jégal leen boole ca ñay tabbi àjjana ëllëg ci daay Seydina Muhammad ak ah, ñun tamit yàlla ma ñu fan ko ànd ak wér ma ñu mujj gu rafet su njaboot yi yàlla dundal leen baaxal leen te barkeel leen ci daay Seydina Muhammad sallallahu taala wa sallam ah wax dëgg kàddu yi lu ci yàqu nag xëy na ci man la daal yàlla yàlla ma tëlee doo wax mënu wax mais nag sant naa gërëm naa ñëpp sant naa la gërëm naa la tey la yàlla def suñ jotee ba kontaan naa gërëm naa sant naa waaw tubaarkàlla parce que parce que ki nga xam ne man moom laa gën a toog ci wetam muy rajo Cheikh eh, Cheikh Tidiane dem ci Casaville Kaolack alors bon ci moom laa xamee yu bari sax ci wàllu diine moom laa jàngee yu bari tubaarkàlla ah léeg ñu daan xoqoo di ñu xas ah yu bon yi di ko bëri wala ngeen yow mu taxaw <laughs> la ñu daan xasee. soo poussé mu dem soo bàyyee mu taxaw léegi tabarkalla ci moom la jàngee yu bare bari bari ah tax tey tey jotaay bu mel nii damay pat day tax mu fàttaliku jotaay yi mu daan def si kawal kë ci kër ga Kaolack kon maa ngi sant di gërëm ñëpp wa salaam. ah bu ma juumal nijaay dafa mel ni am na sa papa benn doomam bu daan xaw a soox tuuti ak ñoom Jeylaani ñoo ñoo den doon kër de Alaaji Jóob waaw kañ. <laughs> ñoo ñoo yéen a den doon kër waaw yoo alaaj moo daan xaw a sox tuuti <laughs> pour wal na ne ah, xam naa bu baax xam naa sa bu baax a baax a baax waaw ma pour won ko rek ne xam naa ko bu baax waaw tabaarakallah àddina yëpp ay takka la rek waaw soo takkul rek daa daanaka amoo xam-xam waaw te xam-xam yëpp takk la ñoom Jeylaani boobu ñoom ñu ngi xaw waa Jeylaani jàlloo ñoom ñoo ñoo seen kii ñoo daan ànd ndeysaan xale bu moo tax ma yem foofu rek ma ne Jeylaani ku doyoon waar waaye gis nga àddina rek waaw tabaarakallaahu kon nag eh, lii yëpp mbokk yàllaa ko moom kenn moomu ko wallaay bu dee daf ci bëggoon kàddu rek ñu jox ko waaw waaw kañ waaw kañ kon nag eh, ñu ngi lay sant yow ñoo bokk lépp waaw fa tabaarakallaahu ñoo bokk lépp ndax nit buy fàtte rek du nit gis nga ruq boobu dem ba kër maam Ousmane Diouf lu fa xew rek mën naa la ko nettali nii nii <laughs> lu fa xew rek mën naa la ko nettali ndax si ruq boobu yëpp dañ dama ko dañ ko miin bu baax a baax a baax dem ba kër maam usmaan dem ba kër joolaaya waaw fa tabaarakallaahu ah loolu nag magi Sokone yëpp yàlla dugg dimbale nañu ah ñi ma ci xamul bariwul ah, ñi ma ci xamul bariwul ndax maam seexu bu ci des mooy daf la daan jàngal yiw day jékki-jékki jox dara tom ne ko ànd leen ngeen yóbbul ko diw sàngam te bum ko bu kenn xam ne maa ko joxe te boobu lim yoroon ci alal bari na moo ma wax ci gémmiñam boobu mu ne ma bu may dee dee xëy na danañ am nag yiñ fi doon na de waaye xaalis buñ fi doon moom duñ ko fi fekk te yaaka waaw ah, mu ne ma nag yi sax day bañ àq njaboot rek waaye konoon danaa jaay yëpp mu ne ma nag nag danaa leen fi bàyyil nag yuñ doon waaye alal moom dërëm duñ ko fi fekk bu soobee yàlla man maa daan génnee dépense bi man man la joxoon caabi koofur bi koofur boobu bi mu génnee àddina banque bu kaw Kaolack lañ ko jaay huit cent mille ci jamono yooyu laaj ko coffre bi mu daan denc xaalisam bi banque Kaolack ñoo ko jënd huit cent mille francs dugub ji dañ ko daan ranger ci magasin yi ba mu fees li lay wan ne nitu yàlla pire la keroog bi muy génn àddina benn saaku dugub moo fa des laaj ko saaku dugub boobu ci lañ ko defal nàkk ci ci lañ ko defal sarax benn saaku dugub moo fa des fekk trois jours avant muy gaañu daf ma ne demal nga ubbi kofoor bi nga xoolal ma ndax am na xaalis bu fa des ma dem caabi mu ko daan fas ci benn mouchoir bu bleu ma dem ubbi xool gisuma fa benn xaalis mais ma gis benn mouchoir yi mouchoir yi ñuy ñendoo nii rek mooy yi am couleur yi ma ne ko am na benn mouchoir daal bu am lu ca ne mu ne ah déedéet boobu or mooy ca nekk diw moo ko moom dina ko jël si waxtu bu ko jël see rek ñu jox ko ko bind naa turam dugal ko ci biir mouchoir bi mu ne ma bàyyi ko fa rek boobu moom bàyyi ko fa dina ko jël si bu jël see dinañ ko ko jox ndax bind naa turam dugal ko ci biir mouchoir bi pour ñu xam ne moo ko moom damay bañ a tudd turam mu ne ma nag loolu rek a fa des ma ne ko waaw mu ne ma alhamdulilahi rabbil alamin kon lu ñu yàq du fi am pour wan la ne moom léppam la planifié maam Cheikh yàlla xam na ko am benn guddi ma doxi jógee ndemeen di ñëw boobu ay une heure matin comme ni ma ñemee guddee nii rek ñii damay toog bi une heure matin ma toola door taal sama oto jëm seen kër su ma demee falaay toog ñuy naan di gerte ba quatre heures du ma taalaat sama oto dem ñibbi laaj leen ñoom ñii ñoom rek laa ko ñemee def na damay toog bi une heure du matin ma taal sama oto jubali seen kër ñuy toog di wax ba quatre heures du matin ma taalaat sama oto dem ñibbi li wax ji rek du génn diine ma ñëw ubbi bunti peron bi wiire ca gannaaw di dem sama néeg boobu sama néega nga ci gannaaw gis maam Cheikhu ci lëndëm gi mu ngi yor kaameel di jàng pour man jinne la xam nga man moom yàlla suturaal na ma ragalu ma dara fi may gis nii ma ko pour préciser bu bu ma xëyee lu ma mën a nettali ah na gis naa jinne nii laa ko gisee ak nii boobu loolu rek laa ci jublu ma wuññeeku muy mel ni luy daw di dem ci côté robine bi ma koc ko na ma ñëw ba egsi mu ne ma Chérif Ibrahima bu ma topp ma ne ko kii kan la maam Cheikh mu ne ma mhm. may préciser benn tey de ma dugg néegam di xool ndax moom la parce que néegam lay romb dem sama néeg xam nga sama néeg moo boobu bàyyi naa néeg ba la dem ci bi ci koñ fond bi ma ubbi néegam pour xool ndax effectivement maam Cheikh la wala du maam Cheikh mu ubbi néegam fekkuma ko fa ma ne kon maam Cheikh la bërset ma ne ko am maam Cheikh bëccëg ni mu leeree guddi looy jol yor alxuraan di dox di jàng mu ne ma lu ci sa yoon ma ne ko de dama lay laaj rek dama bëgg xam-xam yow bëccëg fii lañ lay fekk ci sa piliyaan mi nga yor sa kaamil di jàng loolu ñëpp comprendre nañ ko mais guddi nga yor kaamil dugg ci biir lëndëm gi di jàng ak nooy gisee li ngay jàng mu ne ma waa jëlee lu ci sa yoon ba léegi nag waxuma lan la waaw wax dëgg yàlla nga xam ne eh, xat mu bu mos a jeex mu tàmbali beneen par weer la daan wàccee mujj gi par semaine semaine bu jot mu def xatmul quran semaine bu jot mu def xatmul quran ba bés ma ne ko am Cheikh lu tax doo takk lonet mu ne benn yoon la ma médecin mos a bindal lonet ma takk ko di jàng ba mu yàgg ma ne kon gëmuma yàlla daal di yàlla bu fekkee alxuraan jii may jàng dëgg la te gëm naa ko dindi naa lonet yi bés ni tey soxlaatuma ko mu ne ma keroog laa gëjee yor lonet ba nim génn àddina nii lay tiimee kaamil bi di jàng kon lu bari ci alaaji malik lu bari ci Sidi Ahmed taawu alaaji Malick yëpp maam Cheikh moomu ko daan nettali kon seen maam seen papa monument la woon ku dem guerre 14 18 dem 39 45 xam nga ne yàgg na fi génn àddina 88 le 12 12 12 avril 1988 kon euh, yal na yàlla taas ñu ci barkeem mu wax ma ci gémmiñam ne alaaji ahmad dem alalam man rek la ci wóolu woon mu ne ma keroog bi muy génn àddina maa ngi ko dencal 11 million ci jamono boobu ah waaw nee na boobu 73 bi Alaaji Amar Dem di génn àddina maam Cheikhu ne ne boobu fekk na maa ngi ko dencal ci banque Kaolack bi 11 millions xam nga booba xaalis yombut waaw te loolu bu ko neexoon kenn du ko xam ndax digganteem ak Alaaji Ahmad Dem la woon léegi rek foofu laay jeexalee jox imaam léegi rek maa ngi koy nettali waaw. waaw imaam Lamine sam sam Souleymane Samb waaw waaw hmm. imaam mbayka hmm. mari waaw mu yumpaañ mari yumpaañam la wax nga dëgg la kii kañ moom gis nga li àddina di wax de wax na dëgg ah imam mbayka ah wallaay ndeysaan Moustapha si sa rakk la kon Moustapha rakkam ah, am na fii lay faral di nekk rakkuma Marème ñoo bokk yaay nag Mm-hmm. waaye tante Mbène ah, kii yow mari Ndiaye ngay wax ah, kii mari jóob la yow beneen benn Sicap yow Marie Marie Ndiaye moo nekk amoo waaw ah, ñoom ñoom Marie Ndiaye la ñuy wax xam nga ñaari mari la am xam nga ñaari mari la am mari mari Ndiaye nag moo nekk amoo moom la rakk ji tudd Moustapha Moustapha Sy ak mari Ndiaye nag ñoo bokk ndey te bokkuñ baay mhm. mu ngoog kon gis nga li yàlla di def kon li ma ciy mujj wax mooy lima wax noonu léegi moo tax confiance dafa rëy Alaaji Ahmad dem bu wóoloo maam Cheikh ba di ko dënk alalam léegi rek maa ngi koy wax ko liposto man leen Basiru Jaañ mën naa dóor sama loxo ci alxuraan ne mu nga àjjana grand sëriñ de Dakar mën naa waat ci kaamil ne ku ko jiitu àjjana danga ko njëkk a dee ndax benn geste bu mu def te man geste boobu laa gëm ne jullit xaqan la xam nga na Tijaan yi ma ne leen dafa am ku ma sa réer le alal ju bari biir faas na Tidiane ne ki ko for de nitu àjjana la waa Fass yëpp dal ci kawam ne kii jógee àll bu yàggut ñëw sanc fi di di xam kuy dem àjjana ku du dem àjjana benaan naan diw nitu àjjana la biñ foree alal ji indi ko ñu ne diwa ko for Seydina Cheikh ne nitu àjjana la ñu ne ko foo ko teg ci alquran wa ama man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal mawa yàlla ne ku ragal dajeeg boromam ba xañ bakkanam la ko la ko gën a neex na wóor nit ñi ne kooku nitu àjjana la àjjanaay payam ma ne Seexuna Tijaani leen leen laaj leen ko moom mi for alal ji mu ne wallahi bi may for alal ji boobu aw ma su suba waaye ñemewuma ko lekk Seydina Cheikh ne kon li may wax a ngi noonu kii kañ ko bëgg a gis nitu àjjana buy daagu mu ngi nii yor for alal ju toll nii te amoo dépense su suba nga ragal yàlla delloo ko yàlla moomu du neenal sa jëf inna allaha la yudiyu ajral muhsinin ma ne leen basiiru Jaañ nag loolu laa gëmee ne billaahi wal kitaabi nitu àjjana la ñii xam nañ ko seeni sàll maa ko doon denc nabu mii xam na ko sama nijaay mii xam na ko magam Mariam sàll di may wax di ko xam yow maa ko may wérd doomam Fatou Cissé maa ko may wérd mayoon ko maam Ousmane bu Alaaji Abdu Coro bi nekk Ecobank doomam la maa ko may wérd commissaire de police Ablaye Cissé moo doon borom këram waa bu njool mu ngoog moo doon borom këri Marem Sall Ablaye Cissé nag xam nga yàlla daf ko mayoon wërsëg dafa amoon ay toolu banaana sandiniéri bii bari na pël fuuta buy jaay banaana moo la joxoon quota ci banaana ngay jaay Basiru ah doon jeex na doon xaritu Alaaji Abdu nag Ablaye Cissé mu génn àddina ndekete booba lebal na Basiru Jaañ cinquante millions binduñ ko fen déglu li may wax de Sénégal kóllëre ba léegi am na ngor ba léegi am na man fa laa téye Basirou Diagne binduñ ko fen biñ bi bi ñu robee Ablaye Cissé bi ñëw mu dem ci marem ne ko Ablaye Cissé waxu la dara balaa muy faatu mu ne ko déedéet mu ne ko wanu la genn kayit gum bind mu ne ko déedéet mu ne ko waxu la dara ci man mu ne ko déedéet mu ne ko ah Ablaye moom wóolu na yàlla di waaye billaay dina xam ne yàlla du wor mu ne ko lan la mu ne ko dama ko yoreeloon cinquante millions binduñ ko fet nag comme waxu la ko yàlla la ci wóolu woon waaye dina xam ne yàlla mi mu wóolu woon yàlla du wor may leen ma fi ñetti fan dinaa ko fay si ca ñetteeli koy fay si ci sama loxo soxna la ko teg seeni sàll seeni boobu dëj bu tooy bi maram a ngi toog seeni moo doon nangu xaalis bi mu wàññi cinquante million yi ba mat sëkk mu ne lii laa yore loon ab Cissé ah benn dërëm manqué wu ci benn dërëm cinquante millions xobbet mu ne lii laa yore loon Ablaye Cissé ah waaw mu ne Ablaye am na lu ne woon ci moom ndax Ablaye ne woon de déco eh, directeur école police président Léopold Sédar Senghor di ko recevoir te recevoir ko moom kenn te du ànd ak directeur général te mooy chef te amoon na boobu privilège ci jamono boobu Ablaye Cissé mu ne saa bu toogee ñaari weer ñetti weer moom commissaire lay Cissé président Senghor dana ko recevoir te boobu directeur u école police rek la woon am nay chef ndax directeur de la sécurité mooy chef ak ministre bi muy ku baax ab Ablaye Cissé fa tabarakallahu Basirou Diagne nag geste boobu mu def man ci laa ko téye beneen bi mu daan def lu tumaranke imam ndekete fiñ ko denc fii moom Basiiru Jaañ ajjuma bu alxames bu jot daan na fa dem jàng fa suratul mulki suratu yaasin waaqi a door a dem ñibbi lii Serigne Cheikh a ko nettali ma dégg Serigne Cheikh sax tooñaale na ko mu ne bi ma ko njëkkee wax dama ne ko ci xeetu saalit la bokk rek ci xeetu saalit la bokk rek mu ne ko waaye benn tey saalit baax na rek baax na waaw pour wan la ne ñi baaxoon daal ba tey ñu ngi baax yàlla ñu yàlla boole ci ñi baax bi te am nañ ci yaakaar itam nag am nañ ci yaakaar ah, lii yëpp xolu mbégte la rek imam wane démb ndax ku dul fàttaliku démb doo sant yàlla yonent bee gën ñëpp te yàlla dafa ne wazkur fil kitaabi ismail wazkur fil kitaabi idris wazkur fil kitaabi ibrahim loolu yëpp bu ko yàlla di wax yonent bi yonent bee leen gën ñoom waaye bu ko yàlla ne fàttalikul sa maam Ismaïl fàttalikul sa maam nangam ak nangam bëgg ku fàttaliku démb doo fàtte tey te ku fàttewul tey doo fàtte ëllëg lii rek la kon badu kontaan nañ bu baax tey moom mention spéciale waaw ah, tey moom dama lay sànni ay fleur buñ paree nag ñu seet nuñ def ah, ma jël buñ paree ma jël la hors antenne incha allah. su ko defee ñu jox imaam Sakho rek bu ko defee imam bu pare jox Serigne Samba mu ñaan ñu yewi ñi jëm Thiès incha allah imaam ah kàddu gàngoog bi déet yow nag li ma lay wax toujours yow daal waxtaan danay neex waaye daf koy def ni geenu béy rek day jékki-jékki rek ne ko coupet waaw tabaarakallaahu jërëjëf ok bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa sallama tasliman mbokk yi jàkkaarloo ñun ci àddina di seetaan Dabakh TV tey ñu ngi fii nag ci yoof fa tabaarakallaa jàmmalaay dë ci sunu sunu kër xarit sunu soppe sëñ Alioune Badara juuf muy waxtaan ak seet si boo xam ni doomu nijaayam waaye sangam xaritam léppam Chérif Ibrahima Haydara Tidiane moo ko ko jagale at mu jot mu ñëw teewee ko bii la ñetti yoon ndax bu ñu seetloo 2007 2017 la woon 2018 on est 2000 ba tey ñu ngi ci 2019 yal na ko yàlla gën a continuer baax ah, bu ñu ko defee Chérif Ibrahima Haydara Tidiane ma jël nuyoo bi teg ko ci sa loxo nga sot euh, nga joxal ñu ko suñuy bokk suñuy mbokk suñuy kilifa suñuy nijaay ndax lii du tuuti ay bokk suñu dajee ba waxtaan ba ku ne sa dënn fiix iblis nee na kera ci taatu safara lay fanaan ba bët set iblis nee na saa yu ay mbokk tasee ba waxtaan ba juboo ba ku ne xarit tàpp sa morom jox ko rendez-vous mu ne man directement damay dem tëdd safara sama biir di métti sama nopp di métti sama tànk di métti iblis ñu ne ko kañ ngay kontaan mu ne ñaari mbokk yu doon waxtaan ba ca kanam ku ne sa dënn jóg ñuy coow damay xëcc ba ñëw toog xam ne dina am dam kon du ko am fii tey kon bu ñu yàlla dimbalee ci mbaaxam sëriñ bu oyof bi sëriñ bu tedd bi indi ñu fii ci bés bi damay wax ne fii ku yàlla nar dimbale il faut nga fekkee ko kon ñun bés bi bésu sa ci ñun Chérif gannaaw bu ñu la nuyoo nag ci kanami sa mbokk ngay fàttaliku démb te fàttaliku moy lu am solo alxuraan digal ñu ñuy fàttali démb alxuraan di digal ñu di ñuy fàttali ñu defal ni yàlla baaxee bu ne wa in tauddu laa la tuxsuha yàlla mu ne li ma leen defal mënu leen koo takk yàlla nu ñu lay fàttali koo mu ne dee leen may sant ñu ne ko yonent bi ñun nu ñuy fàttali ko wante mu ne ñu waxtaan lañ leen defal li ma gën a neex ci waxtaan wi mooy fi sëriñ bi commencé mooy fi nga jaar ak moom tonton nijaay ci ay junni ci ay dalal ay gan ab taalibe li ko gënal ci àddina fu féex fu mën a dalal ay ganam moo ko gën a féex ndax moo ko gën a jafe amagul kër te bëggul ko ko yab amul lum teralee gan te bëggul ku ko ku ko xeeb amagul lum jënde yére bu baax te bëgg naa seet soo ko ko gàddulee gàddul nga ko àddinaam ak àllaaxiraam xaw ma ñu muy fàtte mais kii bu tegee tànk ndeyjooram àjjana balaa bu càmmoñ bu ne ana sama tonton ngir cees ga kon lu bari démb la lu bari démb loolu nag ku bëgg lu baax dangay ngay jiital lu baax tey ñi am teraanga ci àddina yëpp dañoo investir ci ay dëmm yu baax yu mel ni Chérif Ibrahima Haydara Tijani moom nag wax ci moom yomb na de jafewul de Chérif neel moo baax rek bu la neexee bu ko saraaxa ñun ñi muy man muy oustaz Souleymane sàmb li ñu gën a yéem ci nit mooy nga ëpp ñëpp waaye wanoo leen ne maa ëpp wax naa ko sànq ci misaal deretu yonent bi fu mu dugg rek ëpp na ko waaye shérif bu tasee sëriñu Tiwaawan yi wala sëriñu Tuubaa yi wala sëriñ yëpp ñooñu di yëkk di koy yëkkati moom muy wàcc rek ñuy yëkkati muy wàcc rek buñ ko bàyyee sax mu daanu ci suuf te mënoon a doxee neneen qualité boobu mooy tax man dinay toog di jàngale de ba kanam rek ma muuñ daal di gën a waaye oustaz yaa ngi ree de may leen damaa xalaat rek mbaax gu shérif di defal jaamu yàlla yi di ñu koy defal di koy defal ñëpp ci misaal euh, alin tey yaa moom bés bi su fekkoon dañu jël micro bi jox ko ñu ànd ak ñëpp staff bi ñu nekk ci technique beeg ñu nekk ci ñëpp ne ku ne la wax shérif la nga wax mbaax gu la shérif defal kon ñun ñëpp fii la ñuy fanaan ba bët set wecc te du jeex kon nag dara ñu ngi lay ndokkeel sa biiru bokk Cheikh Ahmad dafay wax ne su diw ne laa ilaha illallah nga ne laa ilaha illallah sa bokk ngoog in di jullit soo demee nag bam ne juuf la yaayam sant nijaayam moo sant juuf ngeen bokk dootu sa mbokk de sa boppa waaw mbokk mooy laa ilaha illallah bokk mooy meen te loolu lépp yàlla defal na leen ko kon bés bi ñu ngi ñaan yàlla rek ci mbaaxam yàlla gën koo continuer banaa ba ca tegu mooy Chérif waaw mun ngeen tàlla rek ma wax li may wax euh, kaddu yi genn kaddu la muy kii toog muy Serigne Oustaz Souleymane Samb Serigne Mahamadul Mansour moo ko iktishaaf iktishaaf ci arab mooy découvrir ndax dañu ànd toog mu ne ma yow laa dénk jumaa ja de ma ne kon dëgg la mu ne ma borom mbaxana mi xonq mi nga àndal nag moo yore baatin ba di toj ca suuf moo tax dara yëngatuwul billahi lazi laa ilaaha illa Cheikh Mansour sëriñ Mansour keroog laa gis oto oustaz taxaw mu ne ci oto oustaz lay dugg xam nga oto taalibe bi mu yombe manqué essence oto bi nekk mu ngi tànk mu ngi tàkk lampe bu xonq maanaam buñ paanee essence ci yoon wi te ñu ngi jëmee sëñ Mansour almadi fu ñu jëm oustaz sangi ci oto bi maa ngi oto oto baa ngi daw rek chauffeur bi nag deuxième troisième rek lay def sëñ Mansour ne ko taalal climatiseur bi <laughs> ne ko taalal taalal climatiseur bi wallahi oto buy tàkk lampe bu xonq nga xam ne mu ngi waaj a jeex sëñ Mansour ne ko taalal climatiseur bi ñu yëkkati weeri taal climatiseur bi oto ba dem ba almadi ba wàccee sëñ bi mu dugg ca néeg ba ne ko yow nag xam naa ne suma ma la yóbbuwoon màkk yi keneen yóbbu la ci déwén sa lañ ànd dem màkk kon loolu dañ ko koy seedeel dañ koy seedeel mbooloo mi baleen ba ca tegu shérif maag mi mii suñu ànd dafa yàgg dafa sincère oustaz tuddee na ma ñaari doom xam nga loolu loolu dafa am doom tuddee ko sama mag bu ma bokkal ndey kum ko tuddee du man amaat doom tuddee ma ko kon koy tuddee na ma ñaari doom kera xale ba bi ma koy tuddee man yëguma ci dara mu jël xale bi jox ko shérif ne ko imam laa koy tuddee Chérif keroog waxtaan wi waxtaan ci ngénte ñëpp ñu mas a ànd moom ñu ne musu ko def lekkut laax yeesalul njàpp dàqut weñ galax ndikuwut sorox ndikuwut di waxtaan ci ngénteeg doom ju baax ak ànd li ko dalee neuf ci guddi ba ba ba ba ba neuf ci suba ba midi gars yi ne ko Chérif laax yaa ngi yàqu mën a lekk leen man tey damaa kontaan kon yooyu bu xewee mu indiwaat loolu ci biir mbooloo mi kon dañuy kontaan bu baax oustaz nag shérif maanaam oustaz nim lay sante su ma la ko waxee dalay lay déranger da ngay am kersaam oustaz dinay def leen mu jël kurusam naan jërëjëfe shérif yal na ko yàlla aar maanaam may ànd ak moom di koy wax ba kurus ga jeex muy téeméeri yoon benn bés da fa ñëw yow kër goo dem moom li xale wax wàccee kër ga ñëw fekk gaañaa ngi banque banque banque banque shérif daal di teppi kalpe ba dalee ko ci borom kër ga la ci gën a neex na waa ji nga xam ne ci bitig ba la nekk doon jaay di jaay ñëw chérif may ko dix mille saa yi ma gisee ne ma ana seen sëriñ bi ma ne ko mu ngi fi mu ne benn sëriñ yi laa am sëriñ day maye waaw sëriñ day maye kon kon fa tabarakallah papa way jeex na macha allah jërëjëf kon kon kon oustaz euh, sëriñ chérif billaay oustaz a lay sant mu ngi lay sant bu baax xaritam nga soppeem nga léppam nga moom it mu jël soxnaam ndeysaan ak njaboot nga yëpp na leen shérifa ngoo lépp kër ga shérifa koy doxal sa Samb ni mu xamante bari na mais boo demee ca néegam ba ca saalam ba photo Chérif Ibrahima Aïdara nga fay fekk loolu woo lëree la koo buggul doo def photom ci néegam ñaari soxnaam yëpp moo leen jox tariqa bi kon bés bi bésu sant la fi may ne xale yi tamit moom lañ jox fi nga xam ne nag fi laay ñëw mooy sunu soxna su baax si yaay faal jërëjëf su ma paree ma ñëw ci àllin jërëjëf te fi nga teg sa tànk foofa la iblis yonent bi dafa tase moom ci ruq bu xat mu bëgg a daw yonent bi bul daw de tey bet naa la mu taxaw mu ne ko tey dama bëgg nga wax ma dëgg bu fi jógee mukk te waxoo ma dëgg iblis mu ne ko ah mu ne ko damaa bëgg nga wax ma koo gën a bañ ci àddina iblis na teg ne ko ah ñett la de yow moom yow laa gën a bañ yow moom yaa ngi côté waaye ñett ñi ma gën a bañ ñii la mu ne ko mu ne ko jigéen joo xam ne lu jëkkëram nekk mu nekk ca fu ko soxlaa ci soxla mu jóg bu ay mbokkam ñëwee mu summeeku mu ne ko jigéen ji moom sama noonu la noonu nag moo baax keneen ka ca tegu mooy kan mu ne ko xale boo xam ne kawar gaa nga ñuul su déggee waxtu julli buñ noddee du am jàmm lu dul mu daw julli ci xale boobu de moom ray rek laay xalaat ci moom ak kan koo gën a bañ mu ne nag imaam bu maandu boo xam ne du lekk alali jàmbur du lekk nger du ñu wax ne imaam a tëb sàkket yi moo fa nekkoon démb mu ne imaam boobu moom sama noon la ñu ne ko iblis nag ñen ñett nga gën a bëgg wax na ñi mu gën a bañ mu ne ki mu gën a bëgg mooy mag mu weex tàll ak béjaaw di caaxaan toog ca mbedd ma naan doxal fii rey naa la rey naa la doxal di dam yee waaye xolal Alioune mag mu toog yoroo yoru kurus naan rey naa rey naa te bu demee këram mbuum lay reere ana lam doon rey yéen doo rey reeree mbuum baaxut dam yee baaxut péemi baaxut carte baaxut cigarette baaxut sàngara baaxut te ci mag la gën a bon yooyu Iblis mu ne bu ma gisee mag ma toog nag dama naan ah saa moom jekk naa ko yaa na ma meññeel ay sët mag mu weex tal ak kan sa xarit la mun ne jigéen joo xam ne bu jëkkëram ne ko mane mu tàcc ko ba koñ ba daw ñëw te bu yàgg Malaay Chérif mag ñi kër yi buñ dendee bu xuloo amaan dañuy rocci xale yi ndànk yóbbu leen bëgguñoo dégg xuloo bu xale duñ ko fekkalee xuloo waaye day gis ku toog ci saalam di seetaan télé dégg kër gi mu dendat di xuloo mu ne nii wàññi leen wàññi leen télé bi gars yi wàññi mu ne haa ña nga de ña nga te de ña nga ca de loolu baaxul sa doom ji koy dégg iblis mu ne day tax boo ëllëgee mu dugg ca nooneel ga iblis mu ne jigéen ji nga xam ne bu jëkkëram waxee benn baat mu wax fukk ba wër ko mu ne koo soppeem la ak kan mu ne attekat boo xam ne dafay jël nger ñu koy jox xaalis muy def ci poosam nee na kooku tamit soppeem la ak kan nag mu teg ca nag mu ne mooy koo xam ne mën na lu ne ci àddina mën a dimbale jaami yàlla yi denc alalam ba alal ja nëb wuuteeg suñu maam Cheikhou Diouf bi nga xam ne amoon na wërsëg waaye bawu fi sax 1000 francs kon yooyu yu am solo te mooy dajeeb tay bi ay mbokki deret ay mbokki lislaam ay mbokki ànd ñoo fi daje ñun nag li nga xam ne moom lañ bëgg mooy suñu àndee shérif wala ñu toog ak moom mu jël wax ja jël ñaan nga jël lépp ndax daf ñu doy moom xam na ne li ma yore moo diis waaye li ko noon fu mu toog gis ma fa ndax def na ko man maa ngi dëkk de dakaar trois cent cinquante kilomètres de Dakar ni électricité ni l'eau potable ni infra infrastructure foofu village la pour te dire mais Chérif mu ànd ak une forte délégation 2018 ñëw présider suñu ziyaare bu Kër Lahine la ca nekk yëpp mu def ko ne nañ ko toggal ñeleng saalum saalum yi dem dës daal di togg ñeleen goo xam ne am na géej gi tàmba jeng jaxatu lépp jox ko shérif pare ne ñeleng gi def naa ci wecceer yu ñu compte ko muy deux cent mille léegi nag waa dëkk ba bët bi sa ñu ne ma ana borom ñeleng gi ma ne borom ñeleng nag bu ko toppee àddina kon nag kuñ ko defee ah, tubaarkàlla foofu rek laa ko yemale kontaan rek maa ngi yendu ci conférence ci coono tey faate woon naa waaye incha allah ni ñu ko waxee bés bi moom suñu bés la tey ni ko Chérif waxee moom nitu programme la su ma ne nitu programme la lu mu xalaat rek wala mu junj ko rek loolu boo ko toppee day yaatu tey ni mu nekkee fii ndaw dina dem ba nga xam ne tey programme lay nekk te nit yàllaa koy barkeelal lu mu laal mu barke fa tabaarakallaahu ñu ngi koy sant bu baax di koy gërëm di koy ñaanal yàlla média bi tey mu amee wax dëgg yàlla ñu ngi koy saluer parce que mu ngi dundal diini ji bu baax ndax tey ñoom ñi yore technique bi xam nañ ni Amérique Australie Suède ñëpp ñoo xam ne ña nga fa dañ koy seetaan di ciy jëriñu seen diine seen tariqa seen l'islam ak seen bokk te loolu moo ko initier te loolu defewu ko dara lu dul islam jëm kaw kon ñu ngi nuyu nag waa Dabakh bi di leen ndokkeel seen liggéey rafet na lépp loo xam ne tey addina maa ngi man sama rak samay njaboot samay jarbaat maa leen jox link lien bi ñee nga Angleterre ngi Amérique ñee ngi Australie ñee ngi fune ña nga fa oustaz mi nga xam ne nag yàlla ci lay tëjee dafa baaxal kurusam muy ñaanal doom aadama yi te du leen laaj dara baax ci ñoom bay bëgg dee am na ay certaines doomu aadama yoo xam ne ci fii ci média bii nii ci lañ defaree seen diine ay sëy soo xam ne yàqu na ñoom ñu seetaan ko sérif waxtaan ci ñëw oustaz ne ko koog de dafa mel dafa ñëwoon suñ biir kër <laughs> yu bari yoo xam ne yéen a ngi koy tasaare muy dem te ñun ñu ngi yëg la ca gannaaw lu ñuy wax maa war a alxabar la ca gannaaw journal ba kawalis ba média bi di koy doxal lii gëm nañ ne dinañ dem ba nekk lu mag a mag nekk studio am ay programme yu mag doom aadama yi di ciy dund te ñu ngi koy ñaan yàlla ci weeru koor yu nekk ba nga xam ne fada dana nekk da nekk fada iya mooy dana nekk naka di sefeen ci jaww ji ajaratu sunu sax suñu suñu sang ñu ngi lay nuyu baax lay ziar parce que ñun ku bëgg shérif rek dañ lay bëgg yàlla kenn ñoru ko ku du yonent bi maa la ko wax nag bu la yonent bi ñoree rek yàlla ñoraale la waaye moom yonent bi rek lay toppatoo kese lijjantiwu la neen yonent bi kese ñu nit wax dëgg yàlla shérif suñu xarit suñu sëriñ suñu soppe nit ko ko bëgg rek ndax na bu ñu tasee ak yow rek mooy sërif lañ gis loolu moom moom sëñ xam na ko soxna Sewin noonu la nijaay noonu la ah man du mu doon guddal nii sax waaye sëriñ bee ma forcé waaye ma sama wax quinze minutes 10 3 mu daal di jeex ndax li ma xam a bariwut ko defee nag boo xamee lu bariwut da ngay wax lu gàtt te comme am na lu nekk suñu kanam sàmbin sàmbin di koy xaar muy yu baax yi bu xawee yéex day dal la ñu daloon Tiwaawoon ci ngénti la. sëriñ si dañoo toog rek di waxtaan si di xaji Malick lekk séddale guñ laax yi ba midi xam nga sëriñ si ñoom ndax dëgg yàlla ndeysaan fooruñ ci laax mais nag taalib yi foor nañ ci aliñ Diouf benn waajoo xam ne xel ma daa xaw a naqari mu ñëw ci saal bi ne salaamaaleykum ngeen baal ma li ma sol setut li may wax leerut fi ma jëm leerut waaye nag li ngeen wax de xaar laahu baax na waaye laax it baax na de gaa ne kon nañ dem ca laax ya moo tax ma ne kon nag ñu dem ci naan yi rek <laughs> wasalaamaaleykum wa rahmatullah waa kay jërëjëf ay dara boo ma ci maye waaw waaw bisimilah. ndax ma bippé moo ndax lu tax ma ne daf ma bippé dafa laal une grand dame euh, euh, Badou sa digganteeg sa soxna si yal na ci yàlla teg loxoom ay mbokk deretam ngeen de mais ñun ñi ay mbokki jullitam lañu Badou bi ma xamee jabaram ak léegi am na fukki at ak juróom-ñaar 17 ans yow ñetti at yi ngi fi ñëw yëpp macha allah deux ans yëpp ñu ngi fi daje mu di ma fekk ak jabaram fii si biir kër gi Badou bi mu seeg de 16 ans boo ko jëlee ci li mu li ma xam jabaram bi mu seeg jabaram ak léegi yàgg na mais musul soppeeku si man musul changé ci man jabaram féete na ma foo xamante ni dama naan rek ndey la li mu am ci njuufeen yal na barkeel li nga wax ci maam soxna demal ne la ma bippe ndax da dugg ci affaire am moo tax yaa ma bippe ma nangu affaire bi di ñaan pour ñaari kàddu maam soxna hmm. kon nag ci ndigalu Serif Ibrahima ay dara ak Tidiane yi sànni ci ñaari kàddu rek euh, te ñaan moom mi sax moom mooy ñaan sëñ bi ñëw yow mi doon wax léegi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm waaw euh, sang bi yow mi wax léegi ci la ñuy tàmbalee ci sa kàddu nga xam ne lii lépp mbégte la ak baax ndax wax dëgg yàlla am Euh, ku ko gis rek xam ne am na lu rëy sax lu mu bëgg a wax loo xam ne xol bi mi ngi ko bëgg a wax waaye eh, jëmm ji na ko sax loolu moo waral lii ñu ngi koy siyaar baax ay dara lii lépp yow la ginnaaw yàlla lépp yow la ak batu mi sa doomi nijaay bi ak sama nijaay male ak imaam Lamine Sakho ak mbokk yëpp ñu fi wax ñëpp kàddu yi rafet na macha allah soxna si moom kenn mënu ko kenn mënut a wax ci moom nii mu mel rek ne mel. bërki démb la ñu dajee ci foire bi yàlla seri na bu la gisee day foog ne sax moom boppam la gis dara yéemu ko Badou rek moo ko ñor ak yàlla ak yonent ñun de ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm Serif ñoo ngi lay sant ay dara yow kenn du yow yow daal macha allah kenn du yow wax dëgg yàlla am ñun de ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm benn jikko la am benn jikko te loolu. ñëpp ko ko séeréel waaye ñi ko séeréel te jara séeréel loolu mën naa bàyyi xel mooy doomi Alaaji Abdu Sise baax sëriñ Mbay ñoo ko fekk Tiwaawan mu wàcc ci suuf nañu sërif mi joxoñ ko fu ngeen ko gis muy dox ci diina lay dox loolu rek doy na sant yàlla sa mbokk yëpp siggi sa nijaay ñëpp ñëpp siggi fuñ la tudd ñëpp kontaan ci diina rek ngay dox lu baax rek ngay wax ñii ñëpp dañoo bég walla ñii ñëpp sa doomi nijaay yi gis nga sa sama xarit nen bu ndeysaan ñoom ñëpp la bëgg billaay buñ la gisee duñ la gëmee yàlla dañuy bëgg sax ndeysaan ñëw toog rek den yow di la xool ñii ñëpp sama xarit mu ne daf laa mere woon waaye mere koo xam ne nii mere bi am gis na ne daal affaire bi ci moom lay gën a metti mu ne far na foomu mer gi fi mu ne nii soppi na ko soppi na ko juboo force ne xam ne ko ah yaa moo gën de waaw ñëpp waaw waaw ñuy sëri ñuy sant na ñëpp di sant soxna si ndeysaan boobu léegi mi ngi fi maa ngi ko gis rek mi ngi enregistré bëgg bi ndeysaan ak soxla yi yëpp ak seen muraay yu rafet yi ak seen toogaay yu baax yi ginnaaw yàlla ndax yàlla ak sa jëmm ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp badu yow moom kenn xamul lan lañ lay wax man damaa wéri yoon waaye wallahi mu ne ma faaw nga man fi mu ne nii pikir sérif nag moo yor sérif a samay comprimé xam nga comme télé laay waxee ñi maa wax yenn waaye daal sérif a yor samay samay garab daal wax dëgg yàlla macha allah maa ngi koy sant di ko gërëm man su ma gisee damay kontaan ndax yàlla ak yonent bi rek wallaay ki fi ñëw léegi tagg na yonent bi ci ndax moom rek yàlla ak moom te lu baax rek lay xeeñtu sëriñ foo ko gis lu baax rek lay xeeñtu man daal mosumaa gis sax xam naa ne du ñàkk nit ñàkk jom ba tuddee ko ndaw rabbin waaye du ca dem loolu mooy problème bi waaye nag li wétte wóor daal mooy diine islaam daal moom mooy yëkkati alalam moo ko yëkkati moom daal mën na ko taxawal fu nekk dañoo ànd temps yële benn conférence boo xam ne ndeysaan wallaay dama ko xool ba yàgg ñaari ñaari affaire remarque na ma ci moom billaay maa ngi koy jàppoo ñaari affaire bi bi ci njëkk dañoo ànd Serif feebar billaay dafa feebar laajal Mansour dañ ko doon jàpp pour sax mu taxaw mënul sax taxaw waaye mu ñëw toog mel ni dara jotu ko moom daal comme mi ngi wax ci diina rek moom pour moom wér na de moom amul problème xam nga nag li ma gën a jaaxal ci moom fit wi moom moom eh, man dee laa gën a ragal te moom dee la gën a ñëwee moom daal dafa yéeme yéeme yéeme ay dara du billahi man maa ngi koy sant billahi maa ngi bëgg ñun ñëpp ñu ñaanal ko yàlla yàlla bàyyi ko fi mu gudd fan barki yonent bi dafa mel ni dara jotu ko maanaam ndax diine ji muy wax rek moom garaw nee na malaaka moom boo ko waxee affaire malaaka mawteeg te déeg yooyu mu ne waa moom lu man ci man bu ñëwee rey rek la man ci man ni mënta def leneen lu du rey te wax na dëgg rey dong la man ci moom moom mënu ko atte du ko dugal aljaan du ko yëbb safara mënulu ko dara rey dong la ko man kon te moom ragal lu dee wax dëgg yàlla macha allah ne tubaab yi nag boo gisee ñu xaw a tiit ci wàllu ñiy woote diina nii te kii maanaam ñoom dee rek lañ ragal te gone yi dee rek lañ ñemee looloo tax ñu ragal leen waaye wax dëgg gone yi li ñu def ëpp na ñu ngi lay sant bu baax ay dara di la gërëm beneen bi ci topp mooy dañoo ànd benn conférence wallahi yàlla seede na ko ay dara di wax nit ñi daanaka ñetti nit ñoo fa toog waaye moom pour moom million yi doomu aadama ñoo fi toog moom ma ngay wax lam doon wax lam doon wax bu gisee millions yi doomu adama moom bu gisee ñetti nit ak bu gisee téeméeri nit ak un million doomu aadama la yemale net la muy wax ci yàlla rek lay wax dama ko xool ba yàgg rek ma ne kii daal ci mission la nekk bu ñëboo rek bàyyi ko te xam ne yàllaa ko am lu mu ko déey mu am lu mu war a def ci jaami yàlla yi rawatina Sénégal rawatina Afrique gi léegi nag ba Europe France fu nekk fu mu dem rek yàlla rek moo ko yëkkati fi mu ne day dem France ma ne ko boo demee noppalu waaye bu ma demee man ci Dabakh TV bi laa koy kal su demee ñaari fan rek ma gis ko ci télé muy wax di joxoñ di def nii ma ne kii de noppaluwul ñu ngi koy sant di ko gërëm ñuy sant waa Dabakh TV Abdou Aziz saan bu feebaree sax day jug moom topp ci Ndiaye ñoom sëñ Ndiaye ñi ñëpp gars yi sëñ Omar caméraman bi ñoom ñëpp ñu ngi sant bu baax di gërëm papa ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di sant suñ góor gi nga xam ne moom dañ koy ñaanal yàlla rek mu yàgg fi te ndax ay dara mi lépp lu ko tey jii wax dëgg yàlla am bu dee ay dara mi ngi ci troisième étage yow mii de bokk nga ci escalier yi tax mu àgg ci kaw te loolu lu am solo la ñu la ci sant di la gërëm Badu yow moom macha allah ñaan rek nga gudd fan am wér man damaa wéroon waaye dama dama kii ginnaaw bi ci des nag muy imaam Mouhamadul Amin Sakho mii dëkkandoo yi tamit ñi ngi leen di sant di leen gërëm ñoom ñëpp bayiwuñu kenn jigéen ñi bayiwuñu kenn ba ci tut tànk yi ñëpp lañ sant sa doomi nijaay yi sa mbokk yi ay dara li nga am dafa jafe man ma gisee ak sa mbokk yi ak xale yi dem sama xol day sedd guy ndax dañ la bëgg da bu ñu lay xool sax dangay xam ne xool ñeewante lañ lay xool waaye loolu lépp yàllaa ak yow ñuy sant dëkkandoo yu baax a baax imaam Lamine Sakho mii moom mënuma wax ci moom maa moom daanaka rek ba ñu nekkee xale ba léegi ca daara ja ba léegi ñooy ànd benn jikko bi laa xam ci moom waaye bëgg naa ko bëgg na ma sopp na ma waaye wallahi gën na maa sopp ndax Serif Ibrahima gën naa koo jàpp ndax Serif Ibrahima ay dara a yi bu ma ko wooyee balaa mu maa nuyu sax ne ma ana sërif man itam bu ma ko wooyee ka saalika noonu loolu nag ah yàlla ak moom mii la ak mbaaxam waaw man sërif daal wax dëgg yàlla macha allah li ngay def nag yàlla gis na ko te xam naa ne it fayu yàlla rek ngay seet te yàlla dina la fay yàlla na la yàlla fay bari jërë ngeen jëf ñu leen gërëm di leen sant di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullah uh, mbokk yi maa ngi leen di nuyu nekk ci turam ak santam xam naa ne nag sama kilifa yi wax nañ ba pare maam wax ji day xaw a jafe day xaw a jafe lool ci man waaye comme ndigal lañu ñu jéem rek kàddu gi nag du gudd ay kàddu cant la rek ndax uh, xewle say mbokk wuy si la say xarit wuy si la say dëkkandoo wuy si la loolu aw cant gu mag la nee nañ nit moom mën ngaa xewle luwe ay chaise waaye nit ñi moom kenn mënu leen loué ba tax na Chérif wax na fi lu am solo maanaam dog moom am na ci kër gu ne te ku toog sa kërit it nga dog waaye suñ la ko waxee nga bàyyi sa yitte yëpp ñëw kooku moo wax la ko waxuma la ko xam naa ne am naa ci aw cant bu mag a mag a mag a mag a mag Chérif Ibrahima nag dama lay gërëm ndax gaa mbokk am na ci de waaye lu Pa Thierno Ndiaye wax avant muy dem sànq rek nee nañ nit moom su ngeen bokkoon yaay te bokkoo leen deretu Seydina Muhammad bii di dox sallallahu alayhi wa bii di dox seen bii maam gën na la bokk bokkatoo ci loo gi amaana nar des fois nar diggante nit ak cousin am aw mënta ñàkk nag ñuy kalante waaye su yëpp weesoo na moom sunu kilifa nga moom xam nañ ko te yëg nañ ko it waaw yëg nañ ko yëg nañ ko bu baax a baax a baax ndax euh, dañ ñoo defal lu kaweek lool sunu njort ndax dañ ñoo sagal sunu biirub nit sunuy biiru kër sunu biiru koñ maam lii aw sag la ndax euh, ku ne xam na ne weeru koor ni ngay chargé at sa programme yi keroog rek ñu ngi tase maa ngi lay wax ne man de koor dama leen di xaw a ñë yërëm sa tuuti comme conférence yi ni ngeen koy enchaîner du ngeen guddee tëdd teel a yeew maanaam loolu nee xaw ma nan ngeen di def sa bu mën ko donc su ci nit jëlee nar ab temps ne serait-ce lu mu gàtt gàtt maam ñëw taxawal la waxtaanee ko te dara taxul nar joxuma ko dara yàlla mu ñu tiim xam na ko du dërëm gu ma yëkkati jox ko maanaam kooku aw sant bu rëy la Chérif ñu ngi lay sant bu baax di ñaan yàlla yàlla dëgëral taxawaay gi may la wér at wérle diine gi li nga ci bëgg at ñii topp la yàlla nga ko ak sab sago yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ñu ngi àndal it amuñu seen fay mu di imaam sàmb ak oustaz oustaz sàmb ak imaam Sakho ñii moom nee naa bés bi sabab gi ñoom la ndax premier jour ba ma leen bëgg naa nga dogg ci sama kër nga ànd ak ñoom ñëw bañ jeexalee ma ne lii suma sañoon de at bu jot ñu feddaliwaat ko ci lañ la ñaan ne la nañ ko taxawal te incha allah li nga wax léegi dégg nañ ko nee nañ mbir moom lu baax moom gëm naa ne amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am te comme ni nga waxee ne déwén incha allah moom lii déwén incha allahu rabi ma waxaat ko mbooloo mi yëpp déwén damay tànt ci suuf incha allah waaw maa ngi leen koy yëgal comme jox nga ma ci ndigal déwén incha allah dinaa ko tànt ci suuf waaw njaboot gi mbooloo bi gën a yaatu incha allah waaw sant nañ bu baax a baax a baax beneen bi ci tegu da ngaa wax ci sama papa waaw bis bii du sama bis sama bisu papa la ndax wax dëgg yàlla ah ñun de sant nañ ko ñun ñii di njabootam ñun ñii di njabootam sant nañ ko bu baax a baax a baax jamono jii su wàññiwul ay étage fii ci ndakaaru xam naa nañ mbokk ah moo ko ko xañ ak njaboot yar nañu fu mu ñu war a yare maam yërëm nañu yiir nañu ma man mënumaa wax ci moom ndax wax dëgg yàlla cofeel gu ma am ci moom waaw cofeel gu ma am ci moom sama papa macha allah royukaay la royu royukaay dëgg la ñu ngi koy sant nag <coughs> baax a baax baax di ñaan yàlla mu bàyyi ko ci kanamu njaboot gi lu mu bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal yàlla na ko yàlla defal yàlla bu kenn séddale ci ginnaawam wax dëgg yàlla bàyyiwuñu bàyyiwul njabootam bàyyiwul njabootam benn yoon beneen bi ci tegu muy sama soxna sama soxna it dama koy sant bu baax a baax a baax ndax euh, jamono ku ne xam na ne ndakaaru ak dëkkin bi nu mu mekkee maam foog ki ngay nekkal mën laa comprendre pour ngeen mën a dund ndax euh, yàgg nañ yàgguñu ñu ngi bëgg a def ab biir waaye wax dëgg yàlla maa ngi koy seereel njaboot gi ku ma taxawu la ku ma dimbali la it ku ma taxawu la ku ma dimbali la maa ngi ñaan yàlla lii ñu am muy njaboot gii mu bari mu tuuti mu bari yàlla na ci sunu borom teg loxo def ko njabootu barkeel njabootu lislaam njaboot gu teg tànkam ci yoonub siraatal mustaqim ndax wax dëgg yàlla liggéey na ko de ci kër gi liggéey na ko ci kër gi de waaw maa ngi koy seedalaat njaboot gi waaw sama xarit yi mbokk gi su ma limee damay juum waaye yéen ñëpp toog fii at xaritam yi fi ñëw seet si ko tamit ñëw maam gërëm naa leen sant naa leen gërëm naa leen sant naa leen waaw kàddu gi nar maa ngi jégalu nar ci lu ma fi yëkkati waaw waaye waaye santaat naa bu baax a baax a baax yàlla na yàlla fay Chérif Ibrahima ah jërëjëf comme nee nañ lu ustaas imaam imaam Sakho wax ah suñ nee diw lan nañ ciy teg <laughs> dafa baax waaw ah, kon Chérif yaa bu baax jërëjëf jërëjëf ay dóor la rek waaye man daal li li li gars yi di wax mbuub mbuubal buubal dama doon buubal si de du teema yóbbu sagari jaam yi daal waaw jeex na dama doon buubal si rek yal na yàlla dolli sutura kon nag ci ndigalu kilifa yi ñu jàng fatiha jàng waaw nee dëkkandoo yi mu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant waaw sëñ Diallo wallaay dëgg la dëgg la wallaay ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla waaw maam nee na mu ngi gërëm suñu nijaay mu ne doonte xam nañ ne ko baax na daf ko defal gest boo xam ne jëf mooy nit li ma sama papa doon wax chaque jour rek te booy téye doomu aadama koo téye ndax alal man mm-hmm. tey néegu ñax akub étage laa yemal parce que nit ma yare mm-hmm. jikkoy nit laay téye nit tey bu ma ñëwoon sëy si biir ñu feen mm-hmm. ñu am lañ ma wane man jikko bàyyi fa laa yor damay tourné wane ginnaaw mais dama ñëw ñu teg ma ci kaw bugguñu lu ma naqari bugguñ badu ñemewu ma sax jabaru bi saa di maree ma ne ko kon bu boobaa duñ daaw am wujj sérieusement kon ñaanal non surtout si ragaluma wujj ndax gone njaareem la xale jurbel ragalul wujj ku ne xam ne ne xale njaareem ragalul wujj mais waxin la rek parce ci nit ñu jàppe la nit ñu jàppe woon neneen nit ñu defe neneen mais dañu ñëw ñu teg ñu ci kaw yamalee nit ñu sax ak doom yu ñu jur ñun papa la ñuy wax yaay amuñu ay goro ñaanal dëgg la sama papa ko koy mm-hmm. waaw te tamit képp ku ci la gënuñ mm-hmm. mais yàlla ah. noonu sant yàlla rek ah lii yëpp day dellu ci biir sant yàlla dellu ci biir yërmande yàlla it ndax am na loo xam ne su ko yàlla namee nag foog mu am nu mu doxalee loolu la waaye dañuy joxe ñaan bàyyi seen jóob mu tëj ñaan bi fa tabaarakallaahu ndax koolu gu ñu am ci moom waaw ndax jotaay bi ni mu mujj bindoo rek jotaayu lijaaba la maanaam jotaayu nangu ñaan la loolu nag day na sant yàlla ci weeru koor ci fukki fan yi ci digg bi it boole ci te yonent bi nee na fukki fan yu njëkk yi salaay sallam nee na yërmande la yi ci digg bi njégal la yu mujj yi njot la ci safara te ñu ngi ci fukki fan yi ci digg bi ah muy sàkku njégal ci pàppam am nañ ci yaakaar waaw am nañ ci yaakaar te wax naa ko léegi ci duwaañe yi fële ma leen ab jullit daal waxuma ku dul jullit de waaye ab jullit ku ko yéenewul àjjana yit yàlla mi ko bind yéene na ko àjjana waaw sëriñ Cheikh nag daan na wax ne li la ñëpp yéene li la yàlla yéenee ko gën nee na ndax li la yàlla yéene ci ngay jot rek waaw bu la ñëpp yéene sëriñ Cheikh ko wax de na li la ñëpp li la yàlla yéenee ko gën nee na ndax li la yàlla yéene ci ngay jot ñëpp buñ noon safaan te yàlla ne yiw yiw rek ngay am bu ñëpp noon yiw te yàlla maara day taale nammul yiw ci yow doo am yiw mukk kon nag yal na yàlla defaral ñu suñu biir ak suñu biti ñu jàng fatiha jàng ayatul kursi yu suratul ixlaas ñetti yoon bu ko defee ñu jox imaam mu tëj fa tabarakallahu ñu yéene ci góor gi Cheikh Gueye ak mbooleem ñi nga xam ne ni ko imaam waxee ñi jiitu ji ñëpp rek ñu yéene leen ci yal na yàlla sëmbartal yërmande ci ñoom ñun ñi fi desandi yal na yàgg bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi gis nga yàgg may wax gis nga ñii démb biñ may woo mooy tàmbaa bii boobu ñu ngi jëm Tamba Chérif maam ah, Tamba la woon démb Chérif ne ma yaa ngi ñuy sànni ci àll bi toog ndakaaru rek ma ne ko yéenay gone da ca dem leen man maay seen mag ma Tamba lañ demoon démb Tamba la nii démb la woon waaw démb bi may woo mu ne ma ñu ngi nii toll di génn Kaolack jëm Tamba ma ne ko nuyu leen ma waa Tamba waaw fa tabarakallahu ah, diine ku ci nekk doo doo doo noppalu xataa yaatiyakal yaqin mag ñi fi ne woon moom laa wax léegi sëñ Touba Seydi Hadj maam Limaamu Laay mag ñoo ñu liñ daj kenn du ko daj ci kaw suuf waaye ci seen meññeent rek la ñuy dox fi mu ne nii kon ñu jàng ñaan ngi jox imaam mu tëj auzu billahi min ashaitan rajim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 قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك واتبعناك كما أمرتنا فعجمنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والكرام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 sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin